Kaolack ndangaan tey ji teeru na gan gu rëy rëy rëy te mooy son excellence président Bassirou Diomaye Faye tey jii ci àllarba ji fukki fan ak benn ci weeru septembre 2024 la demoon Kaolack ziyaare ji leen waaye ziyaare njabootuk Maulana Cheikh Ibrahim Niass saaxibul faydi tijaani ka nga xamee ni moom moo ko fa toogal di xalif ba Cheikh Mahi ñas moo ko dalal tatagal ko teeru ko waxtaan ak moom gannaaw ba la génn ca mbooloo ma ak taalibe ak kilifa ya ñu jokkalante ay kàddu yu ama am solo nañu njëkke ci kàddu yi nga xam ne moom la son excellence président Bassirou Diomaye Faye yëkkati jox ko xalif bi gannaaw ba mu nuyoo nuyoo bu sell te tedd jébbal ko ci euh, loxo la xalif bi mu jàllale ko ci mboolem taalibe yeeg bokk yeeg dëkk bi sàkku bu baax baax waaye feeñal ak mbégteem ci teew ga mu teew ci dëkk ba xam la ne bu baax a baax ne yàgg naa bëgg a teew foofu ca dëkk ba waaye ngànta ko waraloon ndax kat fëgg na yaari yoon ngir bëgg a teew foofa ziar si xalif ba ziar si taalibe yi waaye ziar si dëkk ba ñu xamal ko ni xalif bi dafa am ngànt looloo waraloon yeex gi gannaaw bi ci la xam la ni lu ko waa dëkk ba namoon lu ko taalibe yu namoon rekk moom nammeer ga mu leen namm moo ko raw foofu ndax kat dëkk boobu da di dëkkam waaye it sëriñ booba di Maulana Cheikh Ibrahim da di sëriñam mu sopp ko lool mu yegg ko foo xam ne dara yeggu ko fa ndax di ab rayukaayam waaye it nekk gi mu nekk borom xam-xam fii ci réew mi waaye xam-xamam ak liggéeyam génn bu mu génn Sénégal dem ba bitim réew Maulana Cheikh Ibrahim ñas saaxibul fayda Tijaani yàlla nañu ko yàlla fayal gannaaw ba ci la sàkku ci sëriñ bi. mu defal ko ay ñaan waaye defal gouvernement bi ñaan waaye defal réew mi ñaan ndax réew mi soxla na jàmm ak dal ngir ñu mën koo liggéey lijjanti ko jubal ko jubbanti ko ba mu jub xocc lii la son excellence wala lenn ci li mu wax jébbal ko xalif bi deneen dellusi ci leneen ak li xalif bi wax